asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah jeudi 22 août 2019 ñu ñëw ak yéen ci yëglikaay yi yëglikaay yi nag tey sunu làmb la journal Les Échos bu dee sunu làmb la moom dafa xëy ñëw tey wan ñu mbër yoo xam ne day ñoom la ñu jàppe mbër yu mag ci làmb ji wala ay VIP ka ca jëkk mooy Modou Lo le roi des arènes Balla Gaye numéro 2 Bombardier Eumeu Sène Gris Bordeaux Tapha Tine bi nag nee na leen yéen ñii day yéen a bëgg a yàq làmb ji ndax nag li leer ba leer li waral yëglikaay bi wax loolu nee na li leer li ko waral mooy seeni calcul bëri na maanaam li ñuy xalaat du ma def li ak su ma defee lii la cay fekk nee na loolu bi ci njëkk la ak itam bañ a bëri gi ñu bañ a bëri ci seen biir bokk na ci li tamit li nga xam ne nii nar naa yàq làmb ji ak kasa yoo xam ne ñu ngi koy laaj te mu seer lool ba yegg ci lool bokk na ci li nga xam ne day yëglikaay bi nee na tax na mu jàpp ne ñii day ñoom VIP day ñoo bëgg nag tiire lamb ji maanaam daal rey ko du jànjekkoo nag la mu xam ne day nee na lii moom kenn munu koo xam li ñu bëgg a taxaw ñi ñoom mbër yu mag yi lank kandaare naan kii laay fii laay awak du ma aw fële waaye ka nga xam ne nag mooy Youssou Ndour moom di njiital super étoile la mu leen wax leer na nee leen sunu sport national bii day yéen a ngi koy foye moo tax nag Youssou jàpp na ne day am na luy yoot lamb ji de te bu ñu ko xamoon dinañu bàyyi ñoom li ñuy yoot ndax nag li leer ba leneen lii mu gis day bu dakkul lamb ji moom ci dee ci la jëm loolu mooy li nga xam ne moom la Youssou Ndour wax leneen la ca des tamit ñu wax ko mooy jàppal ñoom VIP ragal a ñàkk bokk na ci seen i mbir li tax ñuy bañ a bëre ak ñenn ñi am na ñoo xam ne nag dañoo jàpp ne dañoo liggéey ba egsi ci ñoom ñu bañ leen jël ka ca njëkk mooy Ama Baldé miñ bañ ne duñ ko ubbil bunt bi ak Boy ñan ak itam koo xam ne mu ngi ci seen biir te ñoom ñu ko koy wóoy maanaam di ko daw muy tafaatin sunu làmb xëy tey ñëw di wax loolu moo tax na ñu jàpp ne day lii bees ci waxul moom fa mu jëm du baax Père Ibrahima Ndiaye moom am na ci ñoom VIP yi koo xam ne tànn na ko ci wax ci moom mooy kii nga xam ne nii day moo di Lac de Guiers numéro moom day jàpp na ne day ah bis bu dominer làmb ji de wala boog mën naa dominer làmb ji de nee nag li tax mu ne mën na koo dominer bu gënee liggéey boppam ci wàllum technique nee na bu keroogee bu tey mën naa dominer làmb te bu ko dominer nag foqar ci ko ci moom dina jafe ñëw na tamit ci lax li tax mu waxoon ne booy Niang mën naa mi jafe-jafe ci kaw kii nga xam ne mooy Boy Lac de ngir mu daan ko diggante Eumeu Sène ak Modou Lô tamit wax na ca xalaatam moom Père Ibrahima Ndiaye nee nag Eumeu Sène moom bi mu ko gisee kere daal mu sume ko yaram wi mu fasul lool moo tax itam mu yaakaaroon daal combat boobu moom pour mu na jafe lool lool lool ñeneen ñoo xam ne ni moom seen làmb bu ci kenn ki génnee ka ca des génnu ci mooy diggante wulli de ak kéwél ñaari frères yi daal sunu làmb ne jàppal bu dee kéwél la moom jàppal kombaam da koo ñàkk digganteem ak móot ja waaye wulli dee moom jël bu rëy rëy la daan kii nga xam ne moo di ambulance bu Thiès mu mel ni ki nag ñaari frères ya kon seen ab saison ren moom bokkul la muy saf keneen koo xam ne nii moom ab saison bu ca bëree itam combat ba saful suukar saful xorom muy booy muy kii nga xam ne moo di jéen kayre moo tax nag yëglikaay bi jàpp ne day xanaa at mii nu jëm buñ ko fekkee te tal ko xanaa nag dina jéem nag soppi ngir nag combat bi mu bëree moo kuwen sa nga xam ne niil bu ñàkk a ñàkk xorom la yëglikaay bi ne nag ñu ngay wax digganteem ak musaandooy ndax loola dina mën a nekk sunu làmb xëy tey ñëw ba tey di wax lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne tamit gis nañ ko fii nga xam ne nii day moom moo di ci yëglikaay bii nga xam ne moo di sunu làmb ñaari mbër yoo xam ne day jàppal bees leen bëggoon a fàtte itam day daa mel sa saison bi moom ñëw nañ wane ci seen bopp ka ca jëkk mooy maam Balla bi nga xam ne mooy bu mag ba borom top 5 moo ñëw daan Tapha Mbeur jël bu rëy rëy rëy wane ne ba tey mu ngi ci làmb ji te génnagu ci keneen ka ca des tamit di doomi Pikine mooy Onde le Fou mu ginnaaw raay Onde itam day ñëw na ren wane boppam bu baax a baax Ada Fass la jàpp bëreeg moom duma ko wër ko ndomba daan ko yëglikaay bi di sunu làmb ñëw na ci ñaar ñooñu muy maam Balla ak Onde le Fou wane gi ñu wane seen bopp ren waaye ñeneen ñoo xam ne tamit wala beneen xale boo xam ne day mu ngi wane boppam bu baax a baax a baax ci lii nga xam ne moo di làmb ji mooy mbër mii nga xam ne ni day mooy mbërum yaraax mi ñuy wax booy yaraax mu mel ni ki daal moom ren jàppal ab saison mi tam day teg na ko ci yoon wala boog caatu yaraax la ñu koy wax caatu yarax daal moom saison bii moom ah ñeenti ndam tegle na ko ci yëglikaay bi ñëw na tey wan ñu ko keneen koo xam ne nii moom ay làmbam ñu ngi koy wax wala ay kombaam mooy kii nga xam ne mooy njaga caam moom nag li mu wax daal ne na pare ne ngir 2020 bii nu jëm day buñ ko fekkete tal ko wane ci boppam bu baax a baax keneen koo xam ne moom Pikine la dëkk te doxleetul mooy Cobra numéro 2 ñaari année balance la def moo tax nag yëg likaay bi ne na day ah moom ay affaire am day fi nekk nii compliqué na xaw ma nag saison bii nu jëm nu mu cay doxale wala naka la ca war a yëngutoo ngir génn ca la nga xam ne ca la dugg leneen loo xam ne moom dañ cay dem muy Les ko Les Échos nag tey dafa ñëw seq ak kii nga xam ne moo di Abdou Bakhoum waxtaan mii mën a sew Ama Baldé Abdou Bakhoum day nee na Modou Lo ak Ama Baldé jàpp na ne sax day pourtant mën nañoo bañ a daje li ñuy bëgg-bëgg ñu daje day pourtant sax mën nañoo sax bañ a daje ci làmb bëree Abdou Bakhoum tey wax mel noonu ci yëglekaay bi nga xam ne moo di Les Échos waaye ki nga xam ne mooy Abdou Bakhoum ba tey day nee na moom li CNC def daal ci mbirum roi des bi moom jàpp na ne day CNC daal ñoom la àndal moom Abdou Bakhoum moo xëy tey di wax lu mel ni ki noonu waaye li leer ba leer day li jàppal lii ma lay wax yàgg maar wax Youssou Ndour ji jar naa bàyyi xel de te waxoon na ko ci 2STV la ko njëkk a waxee ca plateau bañ ko woon ci diggante Eumeu Sène ak mu Lo ci làmb ji mu ne day buñ ci waxul mën naa jëm fu neexul ba taxoon sax mu ne kon pay-per-view bi nañ ci jàpp te gën koo dooleel waaye mbër yu mag yi te ñoo jéem a daje ci seen biir te xam ne ñooy mayante xaalis làmb kese la de te carrière day jeex ana seen bàyyi na làmb baabooy bàyyi na làmb yax ya jóob ni bàyyi na làmb Tafa Gueye bàyyi na làmb ana booy kayre bàyyi na làmb lag de Guiers bàyyi na làmb te ñoo ñëpp ku ci ne tolloon nga fi guddi yoo xam ne day yaakaaroon nañ ne sa carrière ndax dina jeex olof a ko wax nag lu tëgg a tas kon loo xamul kañ lay jeex yàgg maar boo ca tolloo di def nay neex te ngeen a ci seen biir te nangu ñi nga xam ne prouvé nañu ngeen jël leen bëreek ñoom defe naa loolooy tax làmb ji jëm ca kanam yàgg maar mbokk waa Leewtoo TV ñu leen nuyu di leen gërëm di leen sant Babacar ngeen àndoon ci revue de l'arène bi nu ànd ak yéen euh, ci jàngatu arène bi Babacar maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ndeye Coumba Fall ah di nuyu internet yi suivre Leewtoo TV yëpp fu ñu mën a nekk ci àddina bi di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko saaku ci ñoom di leen nuyu di la ziar di nuyu yàgg mar tey mi nekk ci caméra bi ak Ousmane bi nekk ci montage bi. Babacar nu ñëw ak sunu mbokk internet yi si jàngatu journaux yi ñëw tey si mel ni les échos ak sunu laam sunu laam la ñuy doore sunu laam tey moom dafa ñëw waxanteeg VIP yi mooy ténor yi nee na ténor yi soo moytul daañu rey làmb ji parce que nee ñu lu ñuy laaj si si si cachet dafa cher moytantu bi bëre na te ñoom daal mooy loolu daal Babacar. maanaam daal ñoom fi mu nekk nii seen taxawaay kon buñ ko déggee mooy taxawaay bi ñu taxaw buñ ci continuer mën na am làmb ji dee. Mm. ah loolu nag damaa yaakaar ne ñoom. est-ce que danañ ko nangu parce que li nga xam ne mooy sa gagne-pain ci la sa teraanga nekk pour man yaakaar naa waru jël suuf di ko ca sotti maanaam di lekk ci ndab li ci sotti suuf loolu pour man àndul waaw li am nag mooy que ni ñoom ay mbër yu mag lañu ay VIP lañ comme ni ñu koy waxee mais l'essentiel que euh, boo déggee xëy na ñu def gëstu boobu mooy que ne xëy na bañ a bëri bi nga xam ne ñu ngi koy bañ a bëri seen biir ci yenn mooy tonte bi loolu su yàggee mën na rey làmb ji loolu nag li koy dindi mooy ñoom ñu nangu bëri seen biir parce que tamit bu ñu bëriwulee seen biir ñi nga xam ne jàpp nañu tamit prouvé nañu war a yegsi ci ñoom ñu nangu leen tàllal loxo ñu bëri pour que làmb ji ci kaw gën a mën a am ay mbër yu mag mais su loolu amulee bu ki moytoo kii kii moytu kii kii liggéey ba yegsi nga ne duma ko jël nangam sàngam alors ah tamit mën na dem ba combat bu mag day raar te yaakaar naa làmb ji lu mu neex neex neex neex su Modou Lo bëriwul Balla Gaye de bëriwul Gris Bordeaux bëriwul Eumeu Sène bëriwul Ama bëriwul la Bombardier ak ñu mel ni ki noonu wala Tapha Tine wala Lac de Guiers su keroogee lamb ji tamit neexaay bi day des parce que dañuy soxla seen i combat ndax ñoom seen ay combat pour man mooy événement wu làmba mais nag il faut que ñu nangu bëri seen biir carrière nit ku ne am nga plan de mais du tere nag parce que tey buñ dee buñ ne seen biir Ama Baldé mii mbër suñu demee bay dox sa combat ak moom jàppale yegg si na ci yow parce que bu dee la cadre Bombardier dox nañ digganteem ak Ama wala wax nañ ko Gris Bordeaux dox nañ digganteem ak Ama Baldé Modou Lô digganteem wax nañ ko yaa ngi dégg tafaati nag Ama Baldé wax nañ ko ñooñu sa dama naan bëriwoon nañu Ama am ca ndam ñu dem ba di ko doxaat kon ça veut dire que man dama jàpp ne Ama Baldé moomu yegg si na ci ñoom ak lu mënta xew booy Niang donte moog Lac de Guiers ñàkk na par recours mais itam yegg si na ci ñoom yaa ngi dégg kon il faut ñu nangu may ñooñu ñu bëri ak ñoom te des na yeneen xale yoo xam ne ñu ngi ci ñu ngi ci yegg si nañu pour man parce que mbër mu mel ni Yékini Senior war na mën a bëri si foofu ay Papa Sow ay Garga Mbossé xam nga ñooñ ñëpp ñu ngi fa Modou Anta bu Thiès ama neex il faut que ñoom ñu nangoo jaxasoo bëree suñ bëggee làmb ji avance dem ci kanam mais bu fekkente ne calcul bi su bëree ba bëri ba bëri ba bëri rek mën na gangrène làmb ji te bu keroogee li ñu wax mooy am day rey làmb ji il faut que ñu nangu bëri jaxasoo bëri mayante sens parce que làmb pour man depuis làmb de làmb tey noonu lay doxee. ñi dañuy ñëw fekk fii ñi bëre ak ñoom ñu xool ndax kii mën na ci kii dara su ko mënul ñu seeti beneen su mais l'essentiel que moom il faut que ñu nangu bëri seen biir rawatina nag ñi yegg si di ay xale am lu ñu def ñu nangu leen tàllal loxo bëri ak ñoom Lam ja nga wax sax day dee moom la Youssou Ndour wax ndax Youssou Ndour euh, li ñuy wax il a tiré la sonnette d'alarme nee na euh, suñu continuer nii VIP yi seen business yi dina yàqu ndax soo déggee business li ñuy fayeeku dafa bëre te calcul gi dafa loolu yëpp si xeetu business la neen daal suñu continuer nii seen business bi ñoom noo ci yàqule daal maanaam ah waaw loolu day moom du gën parce que itam comme li ma wax sànq rek lii ci la ñuy amee xaalis ci la seen teranga nekk ndax defe naa tey Balla Gaye de su génnee ci mbedd mi ñëpp topp ko làmb ko ko may Gris Bordeaux noonu Modou Lo noonu Ama noonu keneen noonu keneen noonu Youssou Ndour nag comme li ma waxoon keroog laay waxaat rek ay waxam moom jali muus la parce que li tax mooy euh, dafa nekk nit bi nga xam ne ci senegal xam na lan mooy dundal business xam na tamit lu rey business ndax defe naa ku yor orchestre nekk woykat commencé ci benn di woy di woy ba te nekk tey artiste de renommée international addina bi xam na nekk chef waaw ñëwaat nekkaat chef d'entreprise yaakaar naa say wax ku ci kuy kuy liggéey di bëgg liggéey bay yokk wala muy développé ak tamit nan nan lay def ba liggéeyam du yàqu soo waxee war na la bàyyi xel parce que defe naa foofu la taxawaay boobu la am tey ci réew mi te foofu la toll ci Sénégal moom nag defe naa su waxee kon ñoom war nañu bàyyi xel ci li muy wax ndax bu dee business bi moo leen ci jiitu te yàlla macha allah dimbali na ko am na lu bëri rum ci réussir kon xam na fi pakk yi nekk ak fi ngay jaar tamit ba dem defe naa nag te sport bi ñun ñoo ko bokk te làmb sunum réew ko moom cosaani réew mi la kon defe naa mbër yi loolu leen Youssou Ndour wax nañ ci bàyyi xel bu baax baax wala sax dama naan waa askanu làmb ci wàllu boppam général képp ku yëngu ci ci rek waxu Youssou war nga si bàyyi xel ñu des toujours ci VIP bi euh, ci VIP yi Père Birahim ay ñëw na tamit ci carrière Lac de Guiers nee na Lac de Guiers euh, soo moytu làmb ji dina ko téye ji mais am na loo xam ne war na ko changer ci wàllu bëreem. waaw Père Birahim Ndiaye moom moo wax loolu di technicien ñu koy nuyu di ko siyaar di ko ñaanal moom tamit euh, bokk na ci ñi nga xam ne dañ ñuy seetaan te kilifa la ndax daje nañu ay yooni yoon vraiment muy rafetlu liggéey bi ñuy def te ñun ay xale lañ dañ mënuñu dara dañuy jéem kon moom bu dee kilifa di rafet la suñu liggéey kon duñu mën a def loolu ñaanal ko yàlla guddal fanam wéral wéral yaramam mais defal ko bépp doomu aadama mais loolu mu wax tamit si Lac de Guiers euh, maanaam comme tey mën na téye làmb ji wala su ko téyee wax lu mën a nekk la ndax li tax mooy mbër benn bu fekkente ne booy ñëw ci làmb doo manqué doole sérieux nga si li ngay def sa biir bëre amul ku la mën déstabiliser defe naa mbër bu naqaree daan la waaw mbër bu naqaree daan ngay doon te la dëgër de loolu mu ngi ci moom macha allah du indi ñëw si làmb nga ne entraîné wul du ñëw ci làmb itam nga ne tey bëri lu mu warul bëri moom li ko xelam may loolu lay def fi mu jàpp ne bu fa yemee daan fa lay yem fi mu jàpp ne fu fa yeggee ñu daan ko du fa yegg loolu nag mbër bu nga xam ne lucidoo amoo réflexe doo man loolu te yooyu mu ngi ci moom yaa ngi dégg kon nag li père Birahim wax dëgg la am na yoo ne nag da koy liggéeyaat ndax nit du parfait ay lakin yoo xam ne day des ci côté yooyu ay affaire yoo xam ne ni loolu ay liggéeyaat la am na bu mag nag ñu ko encadré ñoom Roon Sall ak ñoom ak ñoom Mbaye Samb waa Waalo defe naa li ci des ñoom war nañ ko xam ak mag yi géejawaay pour mën ko gën a dolli ci moom mais li am ba des daal moom xam naa ne moom daan ko moom naqari na trop moom ci làmb moom parce que itam waa noo yombul parce que ëppalul ci biir bëri te olof dane tey ci ndox lañ ko taamu mais ci nit la gën te moom dafa tey ci bëri waaw loolu am na solo Babacar ñu jógee sunu lamb dal si les échos les échos moom dañoo dalal Abdou Bakhoum Abdou Bakhoum soo ko déggee mooy manageru Ama balda euh, nekk si Pikine nee na euh, moom euh, nangu nañu nangu na lu CNG wax maanaam xam nga CNG day wax ne benn roi moo am muy màng drapeau mun tegoon màng moo ko jël. keneen ku ñëw nekk tamit roi xëy roi wu presse bi la moom neen nangu na loolu nga xam ne CNG moom la wax te neen tamit. am na yaakaar ne Modou Lo ak Ama Balde du ñu mus a laale Babacar. waaw Abdou Bakhoum ñu koy nuyu di ko jaar mooy manager Ama Balde comme loolu mu wax ne roi bi nga xam ne moom la CNC tegoon drapeau ñu bëree ko màng jël ko boobu la reconnaître ah loolu tamit defe naa ne amul lu ñu ci mën a wax parce que li ñu ci mën a wax mooy wala boog bu amee lu ñu ci mën a wax mooy dañ koy nangul loola mu wax waaye itam dinañ am loo xam ne dañ koy leeral euh, presse bi amuñu roi parce que waxuñu la presse wala roi la ñu wax yaa ki ñu ko wax nag. muy Modou Lo te defe naa loolu waa lamb yëpp nangu nañ ko am na loo xam ne nag pour man jërul ñu di ci delle ko delluwaat roi des arènes amoon na comme ni ñu ko organisé woon ba mag nga jël ko mais mu jóge ca defe naa bëri ak tubaabu joor yàlla na ko yàlla yërëm taxare ko aljana tubaabu joor daan ko ñu ne ko roi des arènes yaa ngi dégg mu ñëw daan tubaabu joor du noonu la demee ñu ne ko roi des arènes Tyson Bombardier daan ñu ne ko roi des arènes Bombardier Yékini daan ko ñu ne ko roi des arènes Balla Bombardier daanaat ko ñu ne ko roi des arènes pour deuxième fois Bombardier moom mu ñëw Eumeu Sène daan ko ñu ne ko roi des arènes Eumeu Sène moom Modou Lo daan ko ñu ne ko ñun moom li ñu xam daal mooy te jàpp ko mooy Modou Lo c'est le roi mooy le roi des arènes actuellement loolu moom mooy li am kantaan nag mook Ama mën nañoo bën a bëre loolu itam defe naa wàlla mu souhaité wuñ ko te moom mi mën naa seen Modou Lo Ama itam defe naa xëy na mën na ko wax ni mais du ko souhaité ndax bëre ak Modou Lo ci Ama Baldé amut lu ci Ama Baldé di perte kon defe naa financièrement amal na ko njëriñ te tamit defe naa ne lu ko ci yàlla may bu surtout bu dee ndam la da koy amal njëriñ kon defe naa euh, ñoom ñaar moom seen bëre li may wax rek xanaa dana yàgg wala dana yéex mais bés dina ñëw ñu ñu mës a bëre yaa ngi dégg loolu daal mooy li nga xam ne moom lay wax ci waxu Abdou Bakhoum boobu làmb nag comme li ñuy wax rek naxante la ak i njóoyante gi kot xëy na moo tax sax mu génn waxe nu mel noonu. xëy na comme la ñuy wax rek li voilà Babacar si kàddu yooyu la ñuy tàggoo suñu mbokk internet yi di leen jox dig daje suba incha allah mais balaa boobu ma nuyu suma waa kër yi mère Sow depuis Mauritanie sama yaay Mohamed Diouf ah, di nuyu sama doom yooyu noonu ah, Maam Diarra Penda sa Sëñ Fallou bébé Rokhaya di nuyu ah, Khadija Diallo chéri à Standine depuis itali di nuyu waa Parcelles di nuyu aussi Souleymane di nuyu ñëpp Babacar eh fàtte woon naa Dadi Gueye maa ngi lay nuyu. dari ñu ngi koy nuyu di ko ziar di ko ñaanal jàmm mais tamit di nuyu kuréel arbitral bi arbitré lamb ji ñoom ñëpp maa ngi nuyu di leen ziar di leen ak rawatina ku mel ni Malick Ngom parce que am na lu nga xam nit ki su ko dee def si yow rek euh, ça veut dire que am na yëg-yëg bu mu am ci te vraiment euh, day daf may conseil ci lu bëree bari Malick ma koy nuyu di ko ziar tamit ku mel ni Dramé tamit maa ngi koy nuyu di ko ziar ñoom ñëpp ñoom Matar Diouf Mathia arbitre yëpp daal nuyu naa leen xam nga di ko teg ci seen loxo kilifa. yaa ngi dégg ku mel ni Sitor tamit maa ngi koy nuyu bu baax a baax mais comme ni nga ko waxee tamit di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre ci Leewtoo TV di leen balu ak di leen baal di wax ne kàddu bu ñu wax rek su jubee nañ jàpp ne yàlla mu ñu dimbali mais su ci dëng-dëng amee rek nit moo matul daal encore une fois internautes yi xam nga ñoom Mamadou Kaolack Diallo ca Lisbonne ñoom Abdoulaye mbay ñoom maam mu Mamadou Gueye taalibe Sëriñ Babacar Si Ousmane Gueye xam nga gars yépp ñu ngi leen di nuyu ñuy commentaire vidéo yépp rawatina revue bi ñu ngi leen di jaar di la ñaanal jàmm ñoom Fatma Fall Khady Rose Ndiaye tuuti Yaay Sarr Dabaax Norvège fu ci waay mën a nekk rek waa Brésil duñ leen fàtte xam nga ñoom mbaytin ñoom ki nga xam ne nii moom Sëriñ Baara Baara Kanji xam nga ma dikkee bu Balla Gaye 2 ñoom ñu ngi Brésil ceebu jën bu motuloo ñoom ñëpp nuyu naa leen balu leen àq parce que boo gisee ñu leen tudd parce que dañu suivre à travers le monde te loolu dafa neex parce que kiy wax kiy déglu mooy mbokkam kon nuyu nañu leen balu leen àq mais Aïda Diouf tamit mention spéciale ma ayda maa ngi lay nuyu Aïda borom maddi Aïda borom ndox mi xam nga ayda borom ñetti baaba kër yi suñ sëñ Babacar ay baayam sëñ Babacar ay sëriñam kër mi di wax a yéen ay séeréem dafa naa loolu neex na maquillage bi moom joor a fi jaar maa ngi koy nuy bu baax a baax yow ay daal a maquillé man joor a ma maquillé kon joor yow it mention spéciale ay sa séri Moussa Ñaa ay sa maa ngi lay nuyu mais kenn du yàgg maar eh yàgg bula la maye tey de pain